mois de janvier bi 23 janvier suñu victoire dañ koy foqate fi mu nek Macky Sall da fay jëfur ay premier ministre mu koy indi wat da fa jaxaso waxon na len suñu victoire mi ngi waja djégé jege waxuma len ko won est ce que xam nga lutax mu def premier ministre est ce que xam nga li def premier ministre da fa dem ba jaxlé ba paré Mamadou Ibra Kane neddoo ko Bandoum neddoo ko Bandoum Mamadou Ibra nee na ko baamu Mamadou Ibra Kane wax na lu tax Macky Sall ne day def troisième mandat xam nga lan moo tax no day indi premier ministre mais Mamadou Ibra Kane il est parce que moom dafa bëggoon diviser yeewu askan bi nekkate boo leen gisee Ousmane Sonko génn keroog ci euh, euh, euh, ko investiture Barthélémy bëreet Ousmane ko ne signé wu ma ndayam yéen ngi fàttaliku lan moo tax Ousmane ko dekkate boobu Macky Sall dafa yónni ay nit ñu commencé wax ak waa yeewu askan bi ci biir yeewu askan bi mu commencé am ay division ay sëriñ ñu mel ne ay Habib Sy ñoom Déthié Fall ñoom ñu ne il faut ñu déglu euh, cadre uni xaw ma lan unitaire de l'islam xaw ma au Sénégal Sonko nag moom defe ne jaru ko jarul déglu lii mais comme gars yi ñu ngi doon ngun ne mu xam ne. Macky Sall mo leen yoni ak serigne pour ñu jema tass tas yow askan bi ci le Sonko nak jël lay devant mu ne signé wu ma ndayam yamu fa si suba si Sonko wo def conférence de presse une heure de temps di wax mané man affaire bi jaxalon na ma nekati yo dem ba laa toog ci goudi mané ni gis wa yow askan bi di def conférence de presse di wax non violence ma ni way man commencé woon naa bind sax di leen man rek maa fa nekkoon di commentaire xam nga man maa ngi fépp commencé woon naa parce que ni ñu commencé daf maa tiital pour man dañuy ñëw di wax ay non violence pa bi naan Habib si naan way xam nga sañ sëñ Mountakha bu ñëwee di wax waxu jàmm il faut que ñu déglu ko patati ba ma ni mooy ñii ma gis fa Déthié Fall naan wooy ma ni Déthié Fall après ñu ne Malick Gakou mu ngi fa woon ma ne Malick Gakou Khalifa Sall léegi la fi jóg ni waa mais yow yow askan bi tas na Mamadou Ibra limu non wax deug la parce que Mamadou Ibra dafa ne yow askan bi dafa am ñu bëgg signer dafa am ñu bëgg signer charte bi Sonko bañ ba ma déggee ma commencé len xass mais ci fin bi heureusement dama commentaire yi ma bind sax dama ko mujj éliminer parce que sëñ Abib Si dafa ne li ngeen wax deug la waye nak li tax ñu tontu len rek len rek la sëñ Mountakha mo len yoni mais ñun duñu signer bu Sonko gennul won def limu def tangal ñaar yoon kon yow askan bi day tass Macky Sall neena len du bàyyi du du may jam comme legui non violence bi yakuna Macky ne xaaral ma wat premier ministre changé gouvernement bi Mamadou Ibra moy wax de xam nga mom lepp la xam ne doo ko bandum ne doo ko bandum Macky lay liggéeyal Boubacar Diallo Mamadou Ibra kan hal pulaar kii la ñuy liggéeyal Macky Sall la preuve ministre affaires étrangères ba mu ñëwee Blinken Mamadou Ibra Kane moo la defal interview dix minutes Mamadou Ibra Kane lan xam lan la waxaat nee na Macky Sall bu defee premier ministre bi dañuy xëcc ay nit yu yeewu askan gars yi breaking news ku ko xamuloon Macky Sall mooy jaam billaahi wallaahi wa taalaahi Macky Sall yëfu dëmm rek lay def non Sénégal il faut que man ma dem nek Gambien où sont les Gambiens gars yi dimbali leen ma man maa ngi bëgg commencer dof balaa ma fi am crise cardiaque dimbali leen ma ma baye dem live dem dem dem nek Gambien Macky Sall da ngeen yaakaar dafa def premier ministre ndax bëggul def 3e mandat wala dafa bëgg Amadou Ba nek numéro 2 mukk Mamadou Ibra Kane nee na Macky Sall dafay def xam nga lan moo tax muy def premier ministre pour Macky Sall jéem a xëcc Déthié Fall Macky Sall jéem a xëcc sëñ Habib Sy Macky Sall jéem a xëcc Khalifa Sall parce que xam na ne mënul xëcc Sonko billahi Macky Sall moo moo mooy jaam parce que dafa xam ne sénégalais xaalis rek la gëm billahi wallahi tàllahi Macky Sall Macky Sall yu fu dëmm rek lay def man démb ak tey tey démb damaa damaa découragé dama déggee Mamadou Ibra kan wax loolu man loolu xalaatuma ko pour man Macky Sall dafa génne trois premier ministre parce que dafa sonn bëggatul def troisième mandaa même ñoom Cheikh Yérim soo sax koy wax bu fekkee ne Amadou Ba la jël loolu day wane ne bëggul def troisième mandat mi ngi préparé dofem mais Macky la Macky Sall dafa dafa dof Macky Sall dafa soxor dafa iñaan Macky bëggul dem Macky Sall bëggul dem dafa xam ne sénégalais dafa bëgg xaalis mu ne xaaral ma woo premier ministre xëy na bun yoon lay doon wala Amadou Ba ak ku mënti doon dafa naan la fexeel ba boo demee wax na gars yi sax ba pare Macky boo demee ñi muy war a waxal wax na leen ku mu mën a xëcc ci yow askan bi ku mu mënti doon waaye nag yaakaar naa ne instant bi ñu toll yow askan bi am nañu fulle bo xamné ne du nangu di dugg ci gouvernement Macky Sall kan moo fay dugg sommes tous les Deux Ahmed sommes mukk les deux. jamais sommes ko les deux. wuñu ay tous nonu kan Nous sommes gi nga xam nañ ko tous les deux. ko sommes sax les na proposé sommes ko les deux. mu bañ mu ñëkko ni ko sommes mu bañ kon Nous du tous Sonko mom waxale wuñ Khalifa Sall xanaa Khalifa Sall nag buñ ko proposé premier ministre sax xanaa du du nangu du nangu kon Mamadou Ibra Kane li muy wax bu nekkee dëgg ne Macky Sall dafa bëgg xëcc waaye yow askan bi dugal leen ci gouvernement bi ngeen xam ne Macky Sall billahi Macky Sall mooy jàmm ay waay sa booxul ma leen waa APR munu leen ñu dimbali ngeen delloo ñu suñu réew bëgg sàcc élection yi munul jàll mu xam ne day ñàkk élection yi mu créé premier ministre xool leen fi mu créé premier ministre mënu loon bàyyi ba élection yi jeex dama leen di laaj mais ci njuuj njaaj le, le, la juddoo ci njuuj njaaj lay deewee Macky Sall il faut que waa Sénégal ngeen am fulla am fayda mais ak jaam yi ñu wër activiste yi man nak duma nit ah gars yi man tan yële maa ngi doon attaquer activiste où sont les activistes ay way activistes ané ani ana Clédor yéen a ngi nekkite yoo boobu ñoom gars jox nañ leen xaalis bu beuri ñu nek ci créer ben programme nek sen nek sen agenda bop yéen waru la nek sen agenda bop ndax tay bo len excès fi Sonko moo tax tey bu élection amé Macky Sall dafa ndoron dàq élection bu 2024 comme ni ko Cheikh yirim waxé tay bu élection amé Sonko moo tax moom lañ fi ndoron jàpp le 3 mars xawma le 5 mars dëkk bi tak jàppeet xale yi génn comprendre Sonko moo tax tey ñu imposer Macky Sall dix commandement yi imposer ko élection yi kon yéen li ngeen waroon def temps yëpp maa ngi leen koy wax le premier décembre boo leen bëggee élection yi jaar yoon yomb na. élection yi boo leen mu jaar yoon yomb na Sonko bu génnaatee moom ak Barthélémy xaw ma le premier décembre lay doon xaw ma kañ lay doon Sonko bu génnaatee Clédor nekkal ci kanam indaale dix personnes Cheikh Omar Diagne. nekkal ci kanam 10 personnes mister Liam, Lame, mister Liam, laimi nekkal ci kanam a 10 personnes ne grenade comme li nga doon wax sank ci conférence du sóob dinañu xex ak yow dinañu jambar ak yow patati patata Sonko moy général bi da ngeen di sóob li ngeen di wax doon ci def gat loolu bo leen ko defoon ñun logiciel

dootoo ko gis grenade moom muy tàkk ana fa la Karim Xrum-Xax nekkoon ba ñuy du jàpp Barthélemy di ko keroog di ko euh, commissaire de police bi di ko def nii di ko blouse mel ni ku xooñ naan ko nii Barthélemy Dias sa moromu góor nga koy nga koy sës rek fan la fan la kii nekkoon fan la Karim Xrum-Xax nekkoon fan la Mr Layem Layem yi nekkoon fan la Assane Cheikh Assane Diouf ana mu fan la nekkoon may wax mu naan dañ ma cheexal fan la nekkoon Cheikh Assane Diouf boobu dem mi ngi Pikine mi ngi réunion ak waa PDS pour ñu def ko numéro 3 Pikine Sénégal du dem ñun instant yi war nañu tal ay Cheikh Assane Diouf Cheikh Assane Diouf bu ñu ko waxee Cheikhale lan la ñu mën a apporter wala daf ñuy ñaanal yaaya yaa may jàmme Cheikh bu Cheikh Assane Diouf bu ñu ko seexalee xanaa def ñuy ñaanal ci élection yi pour ñu gagné loolu boo amee sax moom moo ko war a nëbb mais di wax dañ maa seexal parce que sa sa sama maam dafa daan jàppale sëñ Touba sama maam xaw ma lan fi ñu nekkoon ah sëñ Mbacke xaw ma lan gaawaan sëñ Mbacke gaawaan sama maam saa yu def màggal moom moo doon indi nag yi di rey sëñ Mbacke gaawaan dañ ma Cheikhal Cheikh Assane Diouf euh, saa yi ne ko waaw léegi baa jox nañ la kaala gi xam nga Ahmed Aïdara dafa muus baa jox nañ la kaala gi mu ne non non jotaguñ maa jox kaale kon kay du dëgg doo Cheikh. Cheikh Assane juuf Cheikh Xorom yow boo jógee nga ne nga ne surtout buur Kumba su Kumba Ndofène nga buur surtout buur Kumba Ndofène juuf mais buur Kumba Ndofène Diouf kii la woon ceddo la woon ceddo woon kenn seexalu ko tous senegal li moo tax du du du dem dañoo soxor dañoo iñaan ku nekk yaa ngi jéem a defar sa profil bopp te yéen sénégalais yi dara. Assane Diouf mos nga gis man au moins maa ngi fi def di tari ay ayatul kursi yu mos nga gis Assane Diouf mu tari benn xalaat euh, sa sa Cheikh Xorom wooy Cheikh Xorom ah mu naan dañ maa seexal di xas Sonko di wax ne ba mu nekk Amérique fii 9 millions la daan liggéey samedi 9000 dollars 5 million te man ma nekk Amérique kan ma fiy liggéey 5 dollars ci benn jour ci jaay ay saak ci mbedd mi gisuma ko ba pare di wax ne ah, ah, liñ ko dàq Amérique cinq ans yi mat na c'est pas vrai Assane dina toog dix ans balaa muy duggaat Amérique sëggam du mës a duggaat Assane Diouf buñ ni ko ni ko refulee noonu il faut mu toog dix ans bu la neexee ngeen dem recherche ko mu naan cinq ans yi délai bi mat na c'est pas vrai yéen la ñuy nax ku ci xasa am tur di jéem a defar profilam man ñi ils m'ont déçu Cheikh Omar Diagne il m'a il ñu toog yéen Sénégal fu mu toog. fu mu nekk war a takk ndara takk au lieu ngeen wax dëgg ngeen di jéem a wax loo xam ne yéen yéen seen bopp yéen seen bopp xam ngeen ne billaahi wallaahi wa taalaahi Sénégal du ñu mës a voté ak téléphone man loolu maa ngi koy waat senegal ba ba may dee du ñu mës a ak téléphone téléphone ñun dañoo am technologie boobu mais c'est-à-dire c'est-à-dire ñoom saaga quoi dañuy saaga nañ ñëwaat ci Macky Sall kan moo ko gën a nekk jaam nit koo xam ne fu mu toog mi ngi calculer nit koo xam ne fu mu toog mi ngi